kàllaamaak làkk bi nga juddu nàmp mooy bi nga moom kàllaamaak làkk bi nga juddu nàmp mooy bi nga moom Hey everyone, my name is Cher and I'm giving home classes and online classes to students who are in junior high school to high school, but also I'm giving classes to those who are interested in the English language. Thank you so much. Salut tout je m'appelle Cheikh. En fait, je donne des cours, des cours d'anglais à domicile et aussi en ligne pour les élèves qui sont au SEM et aussi pour les élèves qui sont au lycée. Et en même temps, je donne aussi des cours pour toute autre personne qui est intéressée par la langue anglaise. Merci beaucoup.